est-ce que son bi baax OK ok euh, d'abord damay euh, damay ñaan rek juste ñu partager live bi euh, le maximum possible comme ça opinion bi jot ci militant ak sympathisant yi aussi jot ci donc di lay ñaan ngeen partager ko le le maximum possible hein. euh ñëpp xam nañ ni man j'ai pas j'ai pas l'habitude di def ay ay live Facebook parce que lu ci ëpp euh, sama ay sortie ci télé la wala événement am ñu ñu ñu ñu ñu gis ma mais tey j'ai décidé de faire ce live Facebook là euh, parce que dafa am loo xamante ni euh, il faut que ñun ñu wax ko waxal ko suñu bopp pour que euh, xëy na suñu koy jottalil wala nit ñi di ko dégg à travers yeneen canaux xëy na duñ comprendre mais am na loo xamante ni ñun je pense que fi mu toll nii ñun ñoo ko mën a waxal suñu bopp donc la bi maa ngi ko tuddee waxante dëgg il faut que ñu waxante il faut que ñu waxante dëgg parce que nit mën nga am dëgg mën nga yor sa dëgg ah mën nga am dëgg ba ñëpp xam ni am nga dëgg mais yow su fekkee ni yow ci sa taxawaay yow xamoo ni yaa yor dëgg wala amoo posture boo xam te ni yow mooy wane ni yaa yor dëgg Euh, nit ki nga xam ni dafa yor ay caaxaanam maanaam neen loo xam du dëgg dina am bu amee détermination bu ëpp foofu bi nga am mën na fexe ba yàq yow sa dëgg tonte ni dëgg-dëgg la dëgg kenn mënu ko yàq waaye euh, yàlla ku mu jox dëgg itam à côté la mu la la mu la la mu la wax mooy amal farlu amal yitte parce que bind na tamit ci sa wet koo xamante ni yorul dëgg waaye kooku dina am farlu dina am yitte donc yow soo amee dëgg nga tëdd sa kaw lal wala jàpp ni tu vois euh, man maa yor dëgg rek dëgg baa ngi nii garaawul maa ko yor mais dafoo yitte amoo taxawaay bu lay wan ni yow mi yaa yor dëgg donc finalement euh, doo ci génn dafa am loo xam te ni dama ko seetlu gis ngeen euh, fan yi yëpp coow li bari na vraiment coow li bari na et tout mais li ma seetlu mooy gis nga dossier bi wax dëgg yàlla et c'est c'est c'est c'est c'est un message que j'envoie à tous les patriotes maanaam militants ak sympathisantes yépp yi nga dossier bi li président Ousmane Sonko wax que ni terminus la mooy ñun dossier bi amatuñ luñ ci yokk amatuñ luñ ci wàññi lañ ci waroon def yépp def nañ ko ci c'est que mars 2021 février 2021 ba mu tàmbalee la ñu wa tàmm di wax ni naan dossier bi complot la y a rien du tout ñuy gën a dem yàlla di feeñal ay preuve yu dëggal ñun liñ doon wax ak ñun suñu yeneen dëgg ay preuve yoo xam te ni andi nañ ko ci dossier bi donc soo ñëwee ba ci phase instruction ñëpp xam nañ ni liñ doon dem caaxaan la caaxaan la mais euh, président Ousmane Sonko nangu soumettre en tant que justiciable et retenez bien ce que j'ai dit, parce que da ngay dégg nit ñi di wax naan euh, et d'ailleurs même seen waay la woon Ousmane Sonko moomul justice bi moomul nit ñi c'est un justiciable ne dem wuy ji justice ne dem wuy ji yoon to ñëpp xam nañ ni lii nii caaxaan la mais ñu wax ci insister kilifa yi wax ak moom ba mu nangu soumettre ci jeu boobu ndax non seulement c'est un citoyen c'est un justiciable mais aussi jàpp na ni moo am dëgg mais xam na ni ñii ni ci ay caaxaan la ñu nekk mais mu nangu moom soumettre ci loolu pour lan opinion bi xam lan mo xew ñu ñew ki porter plainte andiul ben preuve c'est-à-dire du ñëwaat ci fond dossier parce que amna lo loo sénégalais yi xam nañ ko mënuñu ko dindi ci seen xel c'est benn bi euh, dossier bi tambalé ben xalé bo xam euh, école primaire la nek defoon fi vidéo d'ailleurs même euh, ba il paraît dañ ko menacer won ci sa sécurité et tout ça xalé bu ndaw bobu mëna décrire des contre-vérités dans ce dossier-là asamaak magum jëmm Tini, xamante ni dund nga fanweeri at wala dund nga fanweeri at ak wala wala ñen ñen fukki at donc amatul luñ ci yok amatul luñ ci waji. gis nga dossier bi Maham Diallo le juge Maham Diallo mo leen ham, xam buñ ko tegoon ci kuusu bammel yóbbu ko tas xam ngeen luy tas tasaraa fi manam dernière couche souf. Maham Diallo mo le gën xam ni dossier bi amul lu ñu war a mën a yóbboo nit waxuma la sax correctionnel ak yu cest nit sax dafa dossier bi waru sax génn gendarmerie wala police loolu yëpp moo ñu ko gën a xam ñi sant ñi ko sant lii nii mu def ñoom ñoo la ko gën a xam ñooñu ña ñuy liggéeyal ñoom ñoo la gën a xam ni lii ay caaxaan la ñun ñi nekk ci réew mi ñun xam nañ ni lii ay caaxaan la ñun ñi ànd ak président Ousmane Sonko xam nañ ni lii ay caaxaan la donc caaxaan nag gis nga nit personnalité ak fulla yaa koy may sa bopp nit suñ la yebee dafa fekk nga doyadi nit suñ la ñàkkalee fulla dafa fekk yow nga doyadi wala yow nga nangu ñu ñàkkal la fulla wala ñàkkal la fayda ña ñu doyadi loola am na loo xamante ni nag ñun ñoo koy mettre fin mu jeex gis nga bu ñu yaakaar ni ñun dañoo topp aveuglément président Ousmane Sonko ñun ay magum jëmm lañ le président Ousmane Sonko joxuñu ñun lu ñu mënul amal suñu bopp ñun mënuñoo jox ñun loo xamante ni suñu yitte suñu xarañ ak suñu taxawaay mënuñu ko may melu fi noo xamante ni parce melu fi noo xamante ni ñun dañ koy topp muy wax rek ñu ci topp ni yàlla daf ñu may xel donte ne ay ndaw lañ dañoo jàng dund ci àddina ñu yar ñu xamal ñu àddina lu ñu def lu nekk suba ba jant ngoon xam nañ bu baax lan moo tax ñu koy def kenn manipulé wuñu kenn hypnotiser wuñu nous sommes des gens responsables mës naa ko wax fii ci benn émission wax naa ko kii mu naan yéen ndaw ñi topp ma ne ko xale yi ngay gis ay responsable lañ parce que ay kër lañu yor yor ay famille di gérer yor ay entreprise di doxal loo xamante ni ñoom ñii tey ñam mënuñu ko doxal donc li ñuy def xam nañ ko bu baax a baax dafa fekk ni gis nga dëgg képp ku fekk fuñ koy salfaañee moo xam da ngay politique wala politigo moo xam ci diine nga nekk moo xam ci loo mën a ne ci àddina ñuy fooyee dëgg nga noppi ci bàyyi mu dem jugoo taxaw la war waxoo ko waxoo taxaw wax dëgg di nga loolu noonu nga seetaan caaxaan googu noonu nga seetaan ba mu sànq dëgg suba caaxaan googu mooy raamaat nank ñëwaat ci yow te boobaa su ak ci yow doo konte ci kenn parce que na nga taxawee woon démb suñ la ko fayee tey caaxaan lekk la ñun nag dossier bi xam nañu caaxaan dong li ji nga nag caaxaan caaxaan caaxaan fulla gu mat sëkk fayda gu mat sëkk moo koy regle caaxaan du xam-xam du xalaat du wax du bind du dara caaxaan fulla gu mat ak fayda gu mat sëkk moo koy régler su fekkee ni caaxaan dafa nekk sa kanam nga bëgg ko dindi di wax ay xalaat ak ay bind ak yooyu soo amul fulla ak fayda caaxaan lekk la te ñun nag fi ñu toll nii il faut que nit ñi xam ko du ñu nangu billaahi wallaahi wataalaahi du ñu nangu caaxaan gi Macky Sall teg ak waa nguram di ñu lekk di lekk présidencement Ousmane Sonko di lekk sa projet là loolu gis li ñuy wax ni yëpp jaratu ko jarul coow jarul xuloo jaratu ko ñoom du nee nañ ci caaxaan lañu nekk ba teg seen dossier bi te àddina bi wërngal këpp ñëpp xam nañ ni lii caaxaan la léegi nag ñun ñi nga xam ni en premier lieu ñun la concerné ñun ñooy jug wan leen fulla ak fayda gu mat sëkk gu leen ni wan ni seen caaxaan gi ngeen yor dinañ jàpp seen caaxaan duma ko ba pare yéen ñi yor caaxaan gi dinañ leen duma fulla fayda dong moo ko mën a regle wax ju bëri ji yëpp jaratu ko explication yu bëri yi jaratu ko parce que nit su fekkee ni tu de bonne foi lu leer woon sa bopp ci mars 2021 bi ñu 2020 2022 ak 2023 leer na ci yow su dee yàlla donga tax ngay wax lu leer woon ci yow mars 2021 bi ñu ñëwee ci 2022 euh, ak 2023 bii ñu dugg su dee sa aqulaay taalaa rek moo tax ngay wax xam nga ni lépp leer na ci yow léegi nag comme leer na ci yow soo persister lenn dong nga bëgg mooy caaxaan te nag nit munoo nangu nekk ci dëgg nit ku yor caaxaanam ñëw di la buñ nangooti ñun déjà ci patriote yi lay commencé suñu xel yi nañ ko jël jox ko ci loo xamante ni mooy suñu dëgg mooy tax suñu dëgg sax mais pas jël yi nga ba jant soo waxuñu dëgg un ministre de la république di wax présomption de culpabilité présomption de culpabilité ci koo yow avocat tu as été agent judiciaire de l'État. nga xam ni kon ñii amatuñu limite suñu demee ba mën a jël ab certificat médicale ki nga xam ni képp ci àddina bi ñoom yàlla dala cest à di nga yàlla buy def bu yàlla buy wax ak nguur wala muy wax ak buur da koy wan à travers les événements ñoom ñu dem ñoo xamante ni ci ñoom lañ bokk ñaar Khaliphone Sall certificat médical la tax tëjuñu ko pour affaire viol Sitor Ndour certificat médicale moo tax ñu jàpp ko tëj ko yow nga ñëw benn nit parce que c'est Ousmane Sonko nga ne noo lañ koy jiiñ te jiiñ gi du jiiñ dara bu ñu keree beneen jiiñ benn jiiñ moo am viol ak menace de mort lañ koy jiiñ certificat médical boobu nga xam ne moom nga sukkandiku justice boobu sukkandiku ci ñaar ñële ñu ñëw tey ñu ne non certificat médical bi compté wul loolu lu ngeen ko mën a tuddee loolu nan la tudd loolu nan la tudd lu dul caaxaan léegi yow nga yor dëgg nga bëgg nangu yow ñu jël caaxaan boobu teg ko sa kaw. ñii di wër di wax naan ay noo Ousmane Sonko dafay défier institution di nga nit olof dafa am muy wax naan ku bindoo ni tama ñu tëggee la ñaari boor ñoo fi am justice boo xamante ni fii lañuy def lu ne weng Khalifa Sall lan moo taxoon ñu ne dañ ko tëj parce que lan un milliard huit cent la woon su fekkoon xaalis dong dong dong dong dong moo taxoon ñu doon topp xalifa Sall mais 94 milliards yi OFNAC def def def rapport xanaa du xaalis 29 milliards yi nga xam ni Mame la dafa épingler Niang su ko andi citation directe xanaa du xaalis 45 milliards armement yi nekk ci litige bu kenn xamul xanaa du xaalis ñaati scandale à milliards nga fiy dégg xanaa du xaalis kon la taxoon ñu doon du Karim Wade lan lan la ñu waxoon dafa jël suñu xaalis jiñ ko ay milliards yu dul jeex xanaa kon lii liy nelaw ci scandale li li li présidente sortante OFNAC bi wax nee na lu mat 20 rapport jox na ko procureur te lépp xaalis la concerné xanaa loolu du xaalis wala ñun du suñu xaalis wala xaalis boobu intéressé wuñu ñoom intéressé wu leen parce que bañ doon def xaalis taxul woon ñu doon def la leen intéressé woon mooy faagaagal nit. donc bu ñu yaakaar qui ci dossier présence Ousmane Sonko bi li leen ci ñor muy deug gi na na certificat médical waxee la wax ci la deug ga feñ amatu leneen luñ ko bëgg nak sa la yow la neex am nga ci droit su la nit nak di ko agencé ay noroonam pour mu comprendre yow li nga bëgg nit ku nekk ak xelam li am solo mooy sa diggante ak sa borom sa diggante ak nit ñi li la waral sa diggante ak sa borom boo ci quitté ak sa conscience li ci des dëggu penc la dëggu penc su feeñee na ku gis baax na ku gisul baax na sa yoon bu mu ci nekkati. donc les mauvais fo mauvais fois yi nit ñi di indi que ce soit ci plateau télé yi ci kër yi ci grand place yi nit yaay am mat gu toll ni doo nangu dugal ci yooyu waxal sa farata ak sa fulla ku gëm baax na ku gëmul baax na. donc caaxaan googu noonu dëgg gii feeñ yàgg na ci dossier bi ñu gëmm seen bët parce que lan caaxaan la ñu bëgg def ci dëgg ndax te nag bëgg sukkandiku ci caaxaan pour jël koo xamante ni non seulement tooñul dañ ko comploter tooñul te lii war na ni tooñul andi nañ ko dañ ko comploter te lii war na ni andi dañ ko comploter andi nañ ko nga ne dee par la force di nga ko jaarale fi nga jaarale ay ay moroomam parce que lan. bëggoo ko jàkkaarloog yow 2024 bëggoo ko jàkkaarloog candidat bi nga nar a tànn soo demul 2024 candidat bi nga nar a parce que lan jàpp nga ni Ousmane Sonko boobu ba léegi li ngay jëm ci moom mënoo ko am mooy da nga soumettre ñëpp moom mu bañ mu ne doo ko soumettre dama leen def benn révélation xam man j'aime pas euh, du may bëgg di génn di wax ci ay révélation mais gis nga euh, bi visitu bi mu defoon pale ci jamonoy coronavirus bi mu rombee pour wan rek ñoom comment il il pense ak nan lañuy xalaté président Sonko ba mu demee visite ba ñëw dafa am ku ñu tànn ci ñi jege won Macky Sall ne ko yow sas ngay jéma approcher président Ousmane Sonko di waxtaan ak mom di naxtaan ak mom di ko pour jéma a noy arranger ak yu mel non parce que ñom li leen gëna a métti leen ma wax leen ko de du affaire dossier bi dé avant même présidentiel ñom li leen gëna a moy dañ ne Ousmane Sonko mënu nekk ci réew mi nekk xalé ñu jaarale moroomam fi ñu leen jaarale lépp tam moom mënu mënuñu ko fa jaarale maanaam soumettre ñëpp tam moom mënuñu ko soumettre am na sax ku taxawoon ci ñoom wax ni Ousmane Sonko day jaay daf ñuy jaay réew dinañ ko wan nii réew mi ñu ñoo ko yor dinañ ko soumettre par la force loolu mu ngi fi donc li lay wan pour wan ne li def ñoom teguwul ci dëgg tey teguwul ci démb dëgg démb dëddul mës a tegu ci dëgg donc fa ñi nga xam ne fa lañ jaarale eh, ñeneen ñi ñu mu ne par la force fa lañ ko jaarale par la force dinañ ko soumettre bëgg ko jaarale ci dossier boo xam te ni caaxal la amul dara lu ciy dëgg même ki nga xam ne moom la ñu utiliser pour mu jiñ kooku su waxee tey lii suba tey gannaaw suba mu wax leneen gannaawaat suba mu wax leneen dossier caaxaan ñu bëgg ko ci jaar ne ko dinañ ko soumettre par la force jaarale ko fi ñu jaarale ay moromam. ba nga xam ni ëllëg lu mu bëggati ci réew mi day toog ak ñun waxtaan dossier bi loolay baas bi de parce que su nangu woon avance yeen ko doon def démb tey lii du am parce que jéem nañ par tous les mois jaar nañ ci ñu ko jege jaar nañ ci sëriñ jaar nañ fu nekk pour ne ko nañ ñëw toog di wax ak ñun loolu la bañ parce que bëggul dugg ci compromission te ku dugg ci compromission ba ay sénégalais jug xeexal la ba ay quatorze doomu sénégalais ki ci gën a mag vingt deux ans la am ki ci gën mag ñi dee mois de mars 22 ans la am yow mosoo dugg ci compromission ba nga tu penses que tay lañu ñuy dugg ci ay compromission du am te duñ ko mës a def bu ñu yaakaaree ni suñ ñu doon jàpp di ñu daggate di ñu def ci ay saaka poubelle wala di ñu xooj ci acide wallaay duñ ko def parce que rien que pour ces vies perdues là c'est 14 vies perdues dont l'un le plus âgé a 22 ans rien que pour ces vies là du ñu mës a caaxaane ci li ñu nekk te bu ñu yaakaar benn yoon que ni dinañ ko caaxaane suñ ñuy daggati laa lay wax suñ ñuy jàpp di ñu rey di ñu daggati di ñu def ci sac à poubelle di ñu dugal ci oto mbali du tax mukk ñu ajourné wu seen kanam parce que xalaatuñ ko ndax dëgg du alalu nit dëgg alalu yàlla la te dëgg googu moo nekk ak ñun nit nag mënoo nekk ci dëgg dem di sukk ci kanam koo xamante ni caaxaana ko tax a jóg te duñ ko def ilaa yow mi diin duñ ko def ilaa yow mi diin duñ ko def donc li may wax mooy ñun ñooy am fulla am fayda am mag gu tollu nii dëgg gii ñu yor ku nekk ci caaxaan duñ ko duñ ko yàqal léegi nag lenn la wax ji yëpp jaru ko coow li yëpp jaru ko du ñoom nee nañ lañu defoon la xewoon mois de mars du amati billaay wax nañ dëgg du am de li xewoon mois de mars du amati mais ñeme naa waat ni lu ko raw dina am wax nañ dëgg li xewoon mois de mars ñoom ñi taxaw ne l'état est prêt l'état fort naan li xewoon mois de mars du fi amati wax nañ dëgg wax nañ dëgg li xewoon mois de mars du amati ndax wallaay azim lu ko raway am su fekkee ni lii nii ñu nekk ñoom bëggu bëgguñu ci dellu ginnaaw lu ko raway am te lu koy rawaay am mooy lenn lu ñu ñëpp pare nañ de parce que ñaar lañ ñaar lañ ñu mënal yóbbu ñu kaso wala rey ñu euh, kaso moom su fekkee lii ngay xeex pour sa réew dañ cee ragal kaso bàyyil nga dem toog te xam ni xeexoo pour sa réew sa intérêt bopp moo tax ngay xeex donc kaso du dara ñaata nit ñoo dugg ci kaso ñaata ay diñ ay diñ Cheikh Amadou Bamba jàpp ñu ko exile ko dafa tax mu nekk ku bon. xeexal réewam ak xeexal dëgg tax sidi Hadji Malick xoolal ni ko tubaab bi doon persécuté topp ci ginnaawam su ragaloon kaso wala ragal persécution yooyu tey li mu am ndam tey ci diine defal ko Sénégal du ko am Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mii jàpp nañ ko tëj ko tëj ko kaso parce que lan ci dëgg gum doon xeex dafa tax mu bon donc ñun li ñuy xeex ragaluñ ci kaso parce que Serigne Cheikh ci boppam moo ne su fekke da ngay defar sa rew dang ci ragal kaso bayil nga dem nga sakku wuñu dem kaso parce que duñu togn duñu provoquer duñu offenser kenn ñu ngi nek suñu liñu wara nek waye nak liñuy xex wuñ ko kaso bidan bi ci dess moy ray ñu nit nak mëno dé ñaar yoon ci li gën bon ci adina moy dé ci lu jarul ñaar yoy kessé lañu mëna def tejñu kasso kaso wala ray ñu te suñu ñu tëjee kaso lu mu yàgg yàgg yàgg dinañ génn bu ñu reyee suñu ay bàkkaar sama kalaas gi li ñu am ci bàkkaar mais xëy na yàlla jaaree fa jéggal ñu ko ñaar yooyu rek a mën a am de amul leneen lu Macky Sall ak waa këram mën ci ñun lu dul ñaar yooyu yóbbu ñu kaso wala rey ñu te rey nag booy dee deewal ci lu ko jar ndax xeex ba dee ngir sa réew amul lu ko gën moo gën di xeex. ci say intérêt boobu ba dee parce que wóoru la ni intérêt ya nga doon xeex méngoo naag dëggu yàlla donc ñaar yooyu fi nekk wax ji yëpp jaraw li Macky Sall lu muy yor yokk na armée yokk na police yokk na gendarmerie lacrymogène yi fetal yi bal yi ñaar yi dong la ci mën mooy yóbbu ñu kaso walla rey ñu te kaso moom suñ la fa yóbbee yàgg-yàgg di nga génn dee moom alaa kulli haal nga dee waaye fexeel ba booy dee nga dee ci lu ko jar te gëm nañ ni lii jar na ko ndax xeex pour sa réew baax amul lu ko gën moo gën di xeex pour say intérêt bopp te ñun biir nañ li ñuy xeex ni du suñu intérêt bopp parce que su doon suñu intérêt bopp mais li Ousmane Sonko li président Sonko di daj ñi yëpp du ko ci fekk ndax ñoom li ñuy def tey mënoon na ko def mooy bi tàngee dëgg-dëgg ndax toll na foo xamante ne nag lu mu bëgg ci réew mi su doon koo xamante ni boppam dong nga ko ñëw lu mu bëgg ci réew mi am ko ndax segam ñi tekkiwul dara ay sagaru nit ñooy dem ci ñoom di di di di di am la ñuy am di am la ñuy bëgg kon asamaa président Ousmane ko ak ñun ñun li ñuy xeex lan la ñuy xeex dara suñu bopp ñun ñoo ngi liggéey yàlla ñuy dimbali bu facture euh, chère mën nañ ko mën nañ ko fay suñuy njàng doom yàlla ak ñuy mën nañ ko fay suñu édi suñu santé doom ak suñuy njaboot yàlla ñuy dimbali mën nañ ko fay yàlla ak ñuy suturaal. yàlla ngi ñu suturaal ñu xëy di mën a jox lu ñu lu ñu dundalee suñu njaboot donc lan la ñuy xeex lan la wàllu tukki tukki soo ko soo ko mënee def ko lan la oto fii boo góorgóorloo am oto kon lan la li ñuy xeex ñun mais ñu suñ bopp parce que ñoom li li li fëkk seen bët yëpp mais nit ñaa ngi ko am toog donc buñ dee xeex lan la ñuy xeex xeex ngir suñu réew jàkk xeex ba man injustice yi ma dund sama njaboot du ko dund xeex ba euh, noot gi ñu noot gi ñu noot pendant des années suñu ay njaboot ak suñu ay sët duñ ko dund xeex ba dëgg sax fii parce que dans toute cette affaire dafa am lu nit ñi bàyyiwul xel dafa am lu nit ñi bàyyiwul xel xam nga lan la nit ñi bàyyiwul xel gis nga ki toog tey parce que affaire bi dafa concerner Ousmane Sonko ndax tey seeni intérêt dafa taseeg Ousmane Sonko donc Tay Ousmane Sonko la concerné mais dans deux ans si fekkee ni intérêt dafa tase ak yow Ousmane Sonko parce que de ci ci yow jublu ndax donc personne n'est à l'abri bu kenn avez ni li ñuy def ndax biñ koy def Khalifa Sall biñ koy def euh, Karim avez muy Khalifa parce que Khalifa moo tase woon ak seeni intérêt menacé seeni intérêt ñu def ko xalifa Sall te bañ koy def nit ñaa ngi toog waaye man j'ai la conscience tranquille parce que ci jamono jooju duggumoon sax ci politique waaye lii may wax ni am na ñoo xamante ni ñu ngi toog di ma déglu li may wax mën nañ ko dëggal mbiru xalifa Sall dama ci xeex injustice ci lu nit lu lu bëri lu nit xamul parce que injustice ku ko xeexul suba ku ko xeexul tey suba dina dugg sa kër lekk ko lekk sa njaboot lekk la yow ca jamono jooju xalifa sàll moo taxawoon seen kanam donc réglé nañ xalifa sàll tuddee ko lu ñu tuddee justice ne xaalis la ñuy seet ak la ñu bëgg a récupérer yooyu jàll na tey nag Ousmane Sonko la tombeel léegi nag est-ce que dañuy toog seetaan duñu ñu toog seetaan de billahi lazi suñu yaakaaree ni ñun li ñuy wax nii c'est des discours yu ñuy wax ci télé rajo dem tëddee suñu kër ñu ngi nax seen bopp de. ñoo ngi nax seen bopp te ma leen wax ni su leen jaralee benn barki alxuraanu karim jaral nañu téeméer ku ma xam xam na ni aw ma habitude di waxee nii du sax du sax samay samay samay samay samay samay mbir mais dafa am loo xam te ni foog ñu génn ko suñu xol yi te wax ko nit ñi di ko dégg Macky Sall yow ak sa waa kër su fekkee lii ngeen di def ni nee ngeen par la force di ngeen soumettre nit ki mu teg ko seen kanam parce que dafa am ñu nekk ci yow bokk ci yéen ñoo xamante ni liy gën a sedd seen xolu àddana mooy tant que gisuñu Ousmane Sonko bu ñu sonal fitnaal ko takkal ko ay mëno teg ko devant des juges muy ñëw di sukk ak ram tant que amuñu loolu seen xol du sedd nañu xam ne dinañ dee te duñ yóbbaale mbigte moomu. duñ ko yóbbaale ba ilaa yomi diin ñu daggate ñu rey ñu daggate ñu dugal ñu ci saaka à poubelle yóbbu ñu sànni ba bës mooy gën a sedd suñu xol que di dund di soumettre. on va tous mourir dans la dignité si le faut mais sa projet-là sera défendu ak lu mënti am quoi que cela va nous coûter rey leen ñu tëj leen ñu jéexal leen ñu jël leen suñu alal dàq leen ñu suñu liggéey xañ leen ñu lu ngeen bëgg mais suñu dignité gi ngeen bëgg ñu jaay leen ko teralee leen ko seen bànneex duñ leen ko mës a defal ilaa yawmi diin amul te du mës a am donc su leen jaralee benn wallahi azim jaral nañu téeméer du kenn keneen waxul ak yéen nu li mooy wax ak yéen Ousseynou Ly mu Pastef citizen li mooy wax ak yéen weccewuñ ko bem nit bi la suñu dignité duñ leen ko sarax duñ leen ko terelee seen bànneexu bakkan yéen ala kulli àll duñ ko mës a def donc pare leen du nee ngeen jaral na leen ko ñoo ngi xaar ñun tamit jaral nañu ko ñu ngi toog di xaar dinañ xool ndax réew mi dëgg dina fi daan fen wala fen dina fi daan dëgg te benn dëgg doo nga am ci mbir mi benn dëgg kese amul ñaari dëgg ak dëgg gu ñu xaaj dëgg du gu ñu gu ñu wengal dëgg gu ñu gu ñu taxawal benn dëgg moo am ci dossier bi te ci usmaan Sonko ak kaam la nekk mooy lii ay caaxaan la te du ñu mës a nangu ilaa yow mi diin ñu sukkandiku ci ay caaxaan bëgg ko faagaagal ñun ëllëg suñ ko nanguwee sax ñun ñii ñun ay lâche parce que ku ci dund nga seetaan ba ñu faagaagal Ousmane Sonko nga am sympathie ci moom am benn cofeel ci moom am yaakaar ci moom toog nga seetaan lii ëllëg sa doom dinañ taxaw ne la tuyee lâche parce que ba ñuy faagaagal Ousmane Sonko la la war defoo ko woon te du personne Ousmane Sonko dëgg gi mu incarné projet bi mu incarné yaakaar gi mu la donc nous ne serons jamais lâches lu ne mën nañ ko am ci defu ci àddina mais on ne sera jamais lâche on va jamais se cacher derrière des institutions pour toroxal ay nit on va toujours lutter et à visage découvert et vous faire face suñu kër yi xam ngeen ko fi ñuy fréquenter xam ngeen ko li ñuy lekk xam ngeen ko li ñuy naan xam ngeen ko fi ñuy liggéey xam ko fi dem xam ngeen ko xam ngeen suñu lépp nëbbatuwuñu nëbbatuwuñu parce que li def on l'assume nëbbatuwuñu on l'assume et devant l'histoire on va l'assumer devant Dieu et les hommes on va l'assumer parce que li ngeen bëgg du am te ñun dinañ taxaw te du am ndax ëllëg bëgg nañ toog ci réew di dox avec dignité et fierté ndax tey jii mere nañ ñi nga xam ni ca jamono dañ ko doon def Mamadou Dia ñu ngi togon di xol ñun mere nañ len mere nañ ñi nga xamni ci ca jamono dañ ko doon def Cheikh Anta ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi togon di xol ñun mere nañ len te ñooñu suñu ay mam lañ ñun nak suñu ay sët duñ ñu mere nous tok di len netali nan len jamono de qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque donc li moy cadeau yi nga xamni mom la bëggona partager ak patriotes bu len nangu ku len dugal ci détail di fooye sen xel di len sonal Macky Sall mi dépense dafa ci say farata dafa bu leen nangu ji nga mënatuñu wax wax wax wax wax wax ba andi fi lu lu amul liñ leen won lolo am mënuñu fi monter monter créer fi ay affaire ba andi fi ñun luñu mëna sonal dossier bi niko président Sonko waxé toñu ci toñu ci tay toñu ci demb te du ci mësa a toon ils ont absolument rien du tout dans cette dans ce dossier là amul mënuñoo wax Ousmane Sonko ci dossier bi lu Ousmane Sonko amul mun munul nekk ko andi donc noppal leen seen bopp ngeen vaquer à vos occupations te préparer la résistance ñun amul dara ji nga ñun dara waruñu fi mu toll nii restons sur le terrain massification mobilisation enrôlement d'électeurs ak lan préparer résistance loolu ku ñu génne ci loolu mu ñuy tooñ ñool moo ñu war waruñu nekkaat ci ay débat yu dul jeex yoo xamante chaque jour ñu envoyé ñu ñaar nit ñoo poche ak biir tax ñuy donc nañ leen tegee fa ni nous dem suñuy liggéey ñii liggéey di liggéey ñii vaquer à nos occupations bu nekk sur le terrain préparer la résistance leneen lu def lu dul lii ñu ñuy sonal duñ tardel te ce que je nekkoon vraiment je tenais à le dire parce que je nekk suma donc li président Sonko wax dossier terminus def testament ñun nañu def suñu testament da ko jaral bakkenam ñun daf ñu jaral suñu bakken jeex na un fa la wax ak